da nga cee am cër. ndax xasida gi sëñ Touba tuubaa la ko taalifee. te li ëpp ci ñuy wax ñëpp biir kër sëñ Saaliw la ko taalifee. waaw ah. soo demee kër sëñ Saaliw. am na kees goo xam ne ni mu nga tudd Matlabul Fawzayni. sëñ Saaliw ku ko xam xam ne bu nit mësaan a ñëw am aajo. am na ay xeeti musuwaar yu mu daan joxe yoo xam ne daana ci def ay barkeelu. barkeel yooyu amut lu mënta saafara jenn jàngoro ju munta saafara amut oh. te kees googu fa lañ ko daan tibbe di ko indil sëriñ bi mu di ko waajalal mbokki taali bi ngir ñu mën a saafara wu sëñ Ablaye ma bàyyi la nga ubbil ñu ci tënku xasida gi waaw balaa ñoo ñëw nag ci biir xasida gi jërëjëf sëriñ Hamidoun wax nga ko xasida gu yéeme la mhm. Matlabul Fawzayni mhm. muy firi tur wi rek mhm. mooy dafa liggéey projet de société liggéey li mu bëgg ci dëkkam ginnaaw bi mu ko wëree ba yàlla wan ko ko mu ñaan sunu boroom loo xam ni sëñ bi wax na ni ñaare lu ngeen dégg muy ñaan yàlla ak ko may ba noppi jox ko tegginu ñaan ko su ko defee teggin gi mooy ñaan ko waaye may naa la ko ba noppi nga gis kon mat la bul faw Fawzayni ni Tuubaa war a mel yépp dafa mel dañ koo portrait def ko ci xasida gi ñu fas yéene waxtaane mag ñi di ko woowee ba tey làqub Tuubaa muy xasida goo xam ni kaaraange la di xasida goo xam ni xasidatu du'a la ñaan la ak xasidatu sukri ak cant yàlla boromam tur bi feeñal mat la bul comme matlabul ni mooy amukaayu ñaari texe yi texel àdduna ak texel alaaxira li ngay sàkk sa dund àdduna yépp nga am ko nga am ci réussite li ngay sàkku ëllëg sa alaaxira nga am ci réussite mu ni ku soxla sa fii jàkk sa fële jàkk ñëwal bunta ngi boo xam ne dalay may ñaar yépp loolu mooy turi xasida gi xasida gi di xasida koo xam sañ baa ngi ko woy ci bëhru rajaz bëhru rajaz la ko bind yaa ngi tudd léegi ay juróom-ñaar juróom-ñaar juróom-ñaar juróom-ñaar xam nga juróom-ñaar soo ko seetee dafa lëkkaloo ak xasida gi ndax bahru rajas mooy juróom-ñaareel bi baxru ci fukk baxru yeeg juróom-benn yi nu miin ci ñi jàng xam-xamu ilmul arud juróom-ñaareel bi buntu baxru boobu lañuy wax baxru rajaz da ngay jël baxru tawil teg ci baxrul madid teg ci baxrul basit teg ci baxrul waafir teg ci baxrul kaamil teg ci baxrul xësëj door caa teg rajas kon juróom-ñaareel bi mhm. baxru la sëñ Tuubaa tënki xasida nga ñëwaat ci juróom-ñaar kon juróom-ñaara ngoog mhm. waaye ba tey xam ngeen ni Touba gi mu ko tënk gi mu waaye xasida gi mhm. Serigne Touba nga ko gis 1307 ci gàddaay 1307. Mhm. ci gàddaay gi la ko Serigne bi gis. Mhm. def na Touba muy 1888 lay tollool ci milaadee ci atum nasaraan mi nu miin. 1888 la Serigne bi gis sañ ci ko. juróom-ñaari at la fa sëñ bi sax. ndax mille cent 1888. ba mille cent 1895 ndogal bi ñëw. mu génn ko. kon juróom-ñaari at la. fi mu taalifi xasida gi itam juróom-ñaari at la fa Serigne Touba séjourné loolu tam bokk dugg ci juróom-ñaari juróom-ñaari ba tey xasida gi mu tënke ko ci biir kun fa yakkuun xam nga kun fa yakkuun kun gi boo ko adatee 70 lay jàpp ñu mhm. xam adat yëpp xam nañ 70 mooy kun fa yakkuun di jàpp 166 mhm. soo boolee 70 ak cent 166 mu jox la 236. 236. xasida gi di 236 bay. muy 236 waaye soo bindee kun fayakoon. Mm-hmm. Mm-hmm. da ngay jël keef. Mm-hmm. jël nuun. jël faa. jël yaa. jël keef. jël waaw jël nuun. juróom-ñaari araf ñëwaat. kon juróom-ñaari araf. mooy secret. bi nga xam ne da koo dugalaat ci biir xasida gi. nëbb ko ci. waaye ba tey ku ne xam na ni juróom-ñaar. dafa waat ak juróom-ñaari asamaan yi nu tiim juróom-ñaar dafa lëkkaloo juróom-ñaari suuf yi juróom-ñaar day lëkkaloo xasida gi képp ko ko saxoo juróom-ñaari bunti safara am doo tàbbi ci benn dañ lay tëjal juróom-ñaari bunti safara yi képp koo xam ne yaa ngi taxaw ak xasida gi kon juróom-ñaar day duggaat foofu ba tey nga xool euh, faatihatul kitab xam ne ñëpp maase nañ ni mooy ubbikaayu alxuraan faatiha mm-hmm. ci ngay njëkke pour tàbbi suratul baqara faatiha juróom-ñaari aaya waaw kon Serigne Touba am na lu mu denc ci biir. ci ay juróom-ñaaram juróom-ñaar. mu jël na xasida gi liggéey ko biir Touba. def ko muy 236 bayit mu denc ci nag li mu bëgg lépp Touba mel ni. ci diggante infrastructure yi fa war a am. ci diggante ndox mi fa war a am. ci diggante jàngu yi fa war a am ci wàllu université. ci diggante dàq bidan. ci diggante dunde sunna. ci diggante jàngale alxuraan ak di ko jàng. ci diggante dundal sunna si yanant bi alayhi salaatu wasalaam ci dàq kàccoor yi duñ fa am benn pouvoir ci yombal fa wërsëg ba pare mu euh, euh, rafaatale nag xasida gi ay aayaati alxuraan yoo xam ne ci biir tarjumaan ji da koy jël comme ya maam Ibrahima ñaanoon boroomam ba muy taxawal màkkatal mukarrama tey màkka bokk na ci dëkk yi gën a riche mm-hmm. richesse ba fa nekk ya maam Ibrahima doon ñaan ci alxuraan jëlaat na aaya yooyu yëpp ci tarjumaan ji di ko indi benn par benn di ñaan lu ni mel ci Touba. ku ne xam na ni wërsëg wi ci Touba. nekkul lu nu mën a fàggu kooku xam ngeen ni ñaan ko nangu la ku ne xam na ni jàmm ji ci Touba. fu problème amee solution ngi feeñe Touba. tout récemment gis ngeen ko ci épidémie bi fi am mbas mu metti mii di di di corona bi ku ne xam na ni fenti jiwul fenti jiwul te bi màggal gi ñëwee dressé na ay millions de personnes de pèlerins Mhm. te benn problème amul parce que Touba day tranquilliser di dalal mhm. ku nekk gis na ni mhm. ni sëñ Touba ñaane ci xasida gi na ni nekk dëkk boo xam day am jumaa ju mag joo xam dañ fay taxawal julli yi juróom muy mat sëkk ba ci corona bi contexte bi empêché wu ñu ñuy julli ji yooyu yëpp ay ñaan gu nangu la mu wax ñaan ba ñaan ci mala yi loraate sax buñ buñ fa dugg mala yi loraate gis nga ci njaal bi yow ay xayya muy jaan asad gaynde anqarab li ñuy wax euh, jiit mhm. yooyu yëpp ñaan na ko ci taariq mhm. kuy jug guddi mhm. dégg nga saaxir koo xam ni day day day njibar yooyu yëpp bu am pouvoir ci Touba. nga xam ni kon ñaan la yoo xam ni sunu borom da koo matal sëriñ Touba. muy ñaan gu nangu mu doore na xasida gi ci euh, bisimilahi rahmaani rahim tudd tudd yàlla boroomam mi nga xam ni moo yor yaa euh, xéewal yu yaatu yi dañuy wax xéewal yu matale yi ci àdduna te yor xéewali ëllëg yi yowmal xiyaam wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman mu ñaan julli ak sërmal gu mate sëkk ju sunu borom yàlla na wàcc ci ndawam li te gën ñépp di yanant bi muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ni maqsadul xasidati du'a wa sukuru kon jubluwaayu xasida gi dégg nga wax na ko nee na mooy ñaan la ak sant yàlla borom aljaaliba dégg nga nga xam day ñoddi day ñoddi ku jàng da lay ñoddi jëme la ci lan ñaan ak sant yàlla sa borom insha allah taala waaye nag li zaydi ngir bëgg dollil ndax yàlla moo ni képp ku sant ma dollil la wan nasri ak tam ngir ndimbalu yàlla sunu borom ndax jaam fu mu toll yi soxla ndimbalu boromam mu ni wahiya maqulatun fi maskani qaa'iliha mu ni xasida gii nag bu leen ci réer ñu ngi ko waxee ñu ngi ko waxee ci dëkkub ki nga xam ni moo ko taalif fa mu dëkk kon mooy Touba la ko waxee mhm. ndax sëñ Touba xam ngeen ni dëkkam moo di Touba moom la gën a bëgg ci dëkk yi mhm. mu ni nag fa la ñu waxee xasida gi mhm. fuy foofa mu ni Touba xarasa allahu taala min kulli makruh mu ñaan sunu borom sàmmal ko Touba ci lépp lu ñuy sip lu ñuy tere te wax na ko fële ca raayee sax waaw ca raayee allahu taala bi jaahil mam doox bi jaahil mam doox ci darajee ki ko tagg moom sëñ Touba mu ngi ñaan sunu borom musal tuubaa ci lépp lu ñuy tere ci lépp wa maxuufin ak ci lépp lu ñuy ragal gis ngeen tey bu coow amee Dakar sax Touba lañ jëm pour di solution fa ngay dawee mucc kon ci loo ragal bi jaahi man hëjëral qaa'ilu ilayha di ko ñaan nag ci daraja yenant bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni dégg nga aji wax ji gàddaay na jëm si Touba dégg nga li ixyaay sunnatihi ngir dundal si sunna si yenant boobu sallallahu taala alayhi wa sallam mu ne aoudu billahi min alshaytan irajim maa ngi ñaan ci sama borom mi nga xam ni mhm. moom rek a mën a musal jaam mhm. mu musal ma ci soytaane mi nga xam dañ koo jam mhm. dafa weddi ndigalu yàlla mu wax ni bisimilahi rahmaani rahim maa ngi door ci tudd yàlla sama borom mii xéewalal jaam ñépp ci àdduna xéewal yu mate tey xéewaleel ëllëg ñi toppoon ndigalam mu ni aoudu billahi aoudu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq xam ngeen boobu waaye benn gënu ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ko ci xadis dañ koy musloo benn gënu ko a'uudu bi kalimaati laahi tammaati min sharri maa xalaq maa ngi musloo ci turu yàlla yi mat yi sëkk mu musal ma ci lépp loo xam ne ay la ci lu mu sàkk mu ni ñetti yoon nga koy jàng kon koo ki nga xam ni da koo soxlaa wir di liggéey ko ñetti yoon lay jàng muslu kooku wala hawla walaa quwwata illa billahi al aliyyil azim kooku tam muslu gënu koo foor yonent bi ne nañ koy làngale ñoom ñaar mu ni wala xawla mag ñaa ngi koy firee ci majalis mooy pexe amul ci bàyyi mooy yàlla yu ne benn jaam mënta ni génn naa ci mooy yàlla définitivement duma ko def ci sa pexe bopp déedéet yàlla lay jàppale moo tax mu ni pexe amul ci bàyyi mooy yàlla mm-hmm. wala quwwata kàttan amul ci topp ndigalu yàlla tam mm-hmm. mënoo am kàttan ba ni li yàlla bëgg lépp ci laay sama tànk mm-hmm. yàllaa lay jàppale rek moo tax mu ne illaa billaahi lu ci kàttanu yàlla al aliyyil yàlla mi aji kawe ci lépp tey aji màgg ci lépp mu ne boobu ñu koy jàng ñetti yoon bisimillahi lazi laa yadru maas mi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiyun alim mu ni boobu musul tam bu am doole ñaare bu sa bopp yi metti wala sa tànk wala nga am gaañu-gaañu wala bëñ buy metti ñépp maase nañ ci ni benn mocc gënul bii mocc bisimillahi lazi laa yadru maas mi shay'un fil ardi wala fis samaa'i alim boo duggee ci oto jàng ko sax doo accidenté dara gënu koo wér ndax dangaa dàq lépp lu dul yàlla daal ni maa ngi tudd yàlla sama boroom mi nga xam ni dara du loroo wala mu yàqoo ci turam bi loolu nga wax te moom yàlla moomu aji dégg la ci lépp lu lu ñuy wax di aji màgg ci lépp mu ni ñetti yoon rab rabbi anzil nii munzalan mubarakan wa anta xayrul munzilin kooku ñaan-ñaan gu am doole la yow yàlla maa ngi lay ñaan nga wàcc ma ci wàccukaay bi gën kooku ñaanu dëkk dëkk la booy dem ci dëkk sax dafa fa sanc mm-hmm. bëgg nañu ko ko ñaan nag ma jox dëkkuwaay boo xam bu barkeel lay doon di ngën ji dëkkukaay boo ma tànnal yow nga mm-hmm. wax ko ñetti yoon mm-hmm. allahuma yaa waahidu yaa ahadu aoudu bika min charri mm-hmm. saakinil balad wa min walidin wa ma walad mu daal di musluwaat ci sunu borom woo yàlla ci turam bi tudd waahidu mooy aju kenn ahad nag moom moom amul kenn kuñ ko tudde yàlla rek ko moom ahad waaw léeg-léeg ngay wax ci nit naan diw daal huwal waahid kii moom kenn la ci nangam waaye boo tuddee benn jaam du fa dugg. Mm. yàlla rek ka moom ahad. mu indi léegi nag euh, siixa siixatul mu baalaxa jàngkatu arab yi xam nañ ko. Mm. indi ko daal ne aoudu bika min min charri bala mm-hmm. maa ngi musloo ci yow yàlla nga musal ma ci ayu. Mm-hmm. képp ku dëkk ci dëkk bi. Mm-hmm. ak képp koo xam ni. dafee jur wala ñu jur ko fi. waaw ah. ku fi jur ak ku ñu jur rek. da am ay maa ngi muslu ci sa ay. ñetti yoon. aqatul asada li ma doon wax ak nee na fas naa boo gisee gaynde ragal ko mhm. dangay jàpp ni dalay fàgg fàdd sëñ bi nee na takk naa ko ba mu dëgër moom gaynde mhm. waaw li mu ko takkee nag la lay bëgg a wax yi mu takk yëpp da leen takk ba ñu dëgër bu doon mocc da koo mocc ba mu dal mu ne aqattu fas naa lan al asada gaynde wal aswada ak lu ñaaw lu ñuul loo xam ne lu lëndëm loo xam ne kenn mënu ko xam lu ñuul fas naa ko wal xayyata ak jaan fas naa ba mu dëgër mhm. wal aqraba ak jiit fas naa ko waat saarixa ak sàcc kuy jël alalu jàmbur takk naa ko waat taarixa ak jukkatu guddi wa samaay wa taarix wa ma adraka ma taarix an najmu saaxib kullu nafsin ama alayha xaafisun nga xam ni biddiw bi jëm guddi sax dañ ko tuddee taarix kuy jug guddi tey fëgg ay buntu di def defi pexe fas na ko nee na wal aqida ak kuy fas ci xolam fas fas yu bon am na ñoo xam dañuy fas ba jàpp la njabarkat yi dañ lay fas ba jàpp la takk la ba yeew mm-hmm. nee na ñoom tam fas naa waaw wan naa fi mooy kuy tifli tëf tudd turu jàmbur tëf fas koo koy naafis waaw ah. naafasaati fil oqat mm-hmm. alxuraan tudd na ko mm-hmm. naafis mm-hmm. jigéen ne ko dàq nag moo tax ñu alxuraan waxul dégg nga naafaas sii na naafaas saati la andi ay jigéen la jigéen a ko daan def ndax kii liggéey yanant bi jàpp ko jigéen la woon jigéenu juif bu tudd labit moo ko liggéey jàpp ko kon naafis sëñ bi muslu na ci moom fas ko wala ain in mooy firi koo xam ni bët bi lu mu xool mu yàqu am na ñu mel noonu arab ñoom la ñu gën a ragal ñi seen bët di xool mbir mu yàqu am na ñoo xam boo rafetle woon dara ba romb leen buñ nekkee tegg seen bët mu yàqu waaw dañoo aay kooku mooy boroom bët bu aay wa saaxir ak ki ñuy wax njibarkat njibarkat koo xam day def sexru day njibar maa ko ci muslu ci moom wal insa ak nit ak lépp lu mu làmbool nit ak ayam wal jaana ak jinneeg ayam an naa ci ñun walif nun mu nuy laal wa an jamiil muslimin te bu mu laal benn jullit bu gëm yanant bi te gëm lislaam sëñ Tuubaa ñëpp la ñaanal ci xasida gi mu ñaan ko nag lu mu leen takke nag fas leen mu ne bi alfi alfi ci junni junni laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim leen fase fasa yak fii kahumullahu wa samiul alim ca baqara mm-hmm. mooy firi yàlla dina fegal mhm. ñi gëm yàlla dina leen fegal yéefar yi ak pexekat yi ba duñu leen mënal dara mhm. ndax moom yàlla mooy aji dégg ci li ngeen di wax di aji xam ci lépp lu ngeen jëf mhm. wallaahu min waraa'ihim muhiit waaw kooku yàlla waxoon na ko yàllaa nu wëre fépp dinu protéger dinu dinu aar bal huwa quraanul majid téeréem bii di alxuraan it dafa màgg fii lawhin mahfuz mu def ko ca euh, àlliwaam ju màgg ja nga xam ne koo wattu moo peeg lépp in kullu nafsin lamaa lay xaafizun waaw sunu borom amul dara lu jaam bi di nekk lu mu peegul lépp la wattu peeg mhm. ko mhm. Mhm. mu ñëw nag ni wa suratul xadri nga jàng suuratul xadri mooy ina anzalnaahu fi laylatil xadr saar woowu sëñ bàmba ni boo koy jàng danga koy jàng dee nga salaasan ñetti yoon ma takriiri wa amanahum min xawfin boo eggee ci wa amanahum min xawfin nga daal di koy baamu nee na juróom-ñaari yoon saban wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraaxaman kathiran wa Mm-hmm. kooku sootu ni saa yi ko waxoon mm-hmm. euh, képp ku jug gàddaay yi mm-hmm. te yàlla tax ngay dem xal set ngaa dajeeg ndàmb mu dootul jeex xéewal yu yaatu ku gàddaay mu jël aay yooyu yëpp dégg nga allazina amanu amilo saali at tuuba lu usnu xam ngeen kooku tamit euh, mooy benn yoon bi yàlla tudd ci sootu buy indi turu tuuba te tuuba xam ni garab la koo xam ni yàlla sunu boroom yanant bi nee na moo ko jëmbatal boppam yàlla ci loxo boppam di ko suuxat garab goo ko di tuubaan ne ca diggu aljana mm-hmm. euh, sunu borom tudd ko benn yoon ci alxuraan mm-hmm. sëriñ bi war a dëkk bi ba gis ko bi mu ko dëppee ci biir mm-hmm. xasir gi dina wax yàlla na mel ni turandoom ba euh, mu ñaan tam ci aaya boobu ko yàlla tudde dégg nga yaa ibaadiya lazina amanu inna ardi waasi'atun de waaw sunu borom fi muy wax ni sama suuf si yaatu na lool gàttaleen ci wuti gi seen wërsëg waaw fa iyaaya faabudu faabudu rab faabuduuni rabbi atqil nii mutqala sidqin mm-hmm. waxrij nii muxraja sidqin waj al lii min ladun ko sultaanan nasiran mm-hmm. mu jël aaya yooyu yëpp euh, na ngeen ma jaamu ci sama suuf si mm-hmm. dégg nga na ngeen ko tàbbi ci sécurité ak ci dëggal bu leen ko génn lu dul rek ku koy génn nga génn ko ci génn bu dëggu waaw mu indi aayoo yëpp waj al lii min ladun ko sultaanan nasiran ba tey rabbi al haazal balada aminan wajnub nii wa banni an naabudal asnaama gis nga kon sëñ Tuubaa mhm. jëlaat na aaya Ibrahima ay ñaan bu samak njaboot jaamu xërëm waaw bëggul ko jaamu ay xërëm statuette rabbi inna hun inna hunna atlal na kathiran min annaas mbiru xërëm mhm. sànq na lu bari ci nit ñi mhm. jël yooye fa man tabi ani fa innahu minni wa man asaani fa innaka ghafurun rahim ku ma topp ci man la bokk li nga ma yónni ku ma mooy nag yow yàlla yaay jéggal ko la neex yaay topp ko la neex waaw dégage de responsabilité rabbana inni askantu min duriyati bi waadin xayri zi zarin inda baytikal muharram xam ngeen ne ñaani ibrahima ja ca màkka màkka bàkk la boo xam ne amul bay amul dara suuf si barkelul ndax xamuñu woon bay waaw kon waaye ñaanuk ibrahima leen topp tey ba ñu riche sëñ bi jël na aayoo yëpp rabbana li yuqimoo salaata fajal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min alsamarati laalahum yashkurun rabbana innaka taalamu ma nuxfi wa ma nuclinu wa ma yaxfa ala allahi min cheyin fi l ard wala fi samay alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibari ismaila wa ishaqa inna rabbi la samiu dua rabbi ij'alni muqima salaati wa min duriyati rabbana wa taqabbal duaayi rabbana agfir li wa li walidayya wa lil muminina yowma yaqumu alxisaab yallaahu ya rabbi innaka qulta wa xawluka alxaq bi mu tegalee aay yëpp nag mu ni ko yow yàlla yaa wax te sa wax dëgg la nag jaam moo sañaa wax tey génn ci ëllëg waaye yow moom wax nga te sa wax jépp la wér aji dëggu la wa ko sidqu sa digge tam du faussé yow loo digge rendez fu respecté ko kon sa digge rek mooy dëgg ad'uuni astajib lakkum yàllaa ko waxoon woo leen ma ñaan ma ma may leen kon maa ngi lay ñaan ci xasida gi wa qulta aydan yow yàlla wax ba tey waskuru lii na ngeen ma sant wala takfuru nii te bu leen ma weddi fa ana ad'uka kon maa ngi taxaw fii nag yaa ko waxoon di la woo wa askuruka di la sant bi hazi il xasida ci xasida gii mat liggéey wa aqulu raajiyan minka may wax àndaaleeg bi may wax di la yaakaar lu may yaakaar ci yow minka maa ngi yaakaar ci yow arrida ngërëm la wal xabul ak nangoog ñaan nga foofu la tarjumaan ji yem. Mhm. sëñ xam mu daal di koy yeggale euh, jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop Bichri euh, yàlla na yàlla fay ci leeral yooyu. Euh, xam nga sëñ tubaa bi ma bi nga jàngatee tarjumaan ji leen rek laa jàngat. waaw xam ne duma laaj. waaw walastu asalu xayran naafian la wallaay ndeysaan moom rek lay ñaan de. tey bu nit di sanc dëkk danaan président bëgg naa ca forage. Hmm. bëgg naa ci centre de santé. Hmm. bëgg naa ci aw yoon. Hmm. waaye moom ñëpp li fi jéggi dem ci borom bindee fi. waaw. soxlawul caabi bi moom magasin bi la soxla mhm. daa dem ne ko lii ma lay demandé nii laa bëgg mu mel ni mhm. te booba xel mun munta nangu loolu mhm. ndax àll bu mel noonu ba sëñ Tuubaa di ñaan ku fekkoon mu bind xasida gi imagine lii mu wax ci biir xasida gi nga fekk ko mu di ko bind di nga ko posé question di nga ko ne mais sëñ bi xoolal environnement bii nii fii lan nga fi courant sax ndax xel mënoon na nangu sax courant ñëw fa maanaam damay dëggal li nga wax ni lépp lu muy wax fekk na yàlla ne ko wax ma waaw may naa la ba noppi mais ci kaw teggin ji hmm. mooy tey may naa la ay ceeb waaye bindal kayit wane ne rek neew may naa la xam nga sëñ Abdul Ahad radiallahu taala anhu hmm. dafa wax ci kaset bu ñëpp dégg hmm. ni fii la fekk am na fi jamono bu jigéen di sebet ab ceebam nit taxaw naan ko may ma ci sebet gi ma naan ndax ñàkk ndox mu ni am na fi jamono joo xam ni xale danga koy gàddu muy jooy yaay dama mar ba dee